jàqare ko kati tànge mooy la mu xelmati ci nawet bi ñu tàmbale dugagum bés bi le jour yi ni kaay ma nga xëy daal di dégtale ab gëstu bu yaatu ci wàllu ko seet lekk jiw gi ak li nga xamante ni moom moo di saytu gi taxit ma nga fësal ci xatam wu njàkk ne képp koo xamante ni nag ji nga ngelaw rek perte moom ngay daal di gópp donte ne sax nguur gi moom def na kéemtalaayu kàttanam ba wàllu ko seet lekk jiw gi mu taxawal ñi nga xamante ni ñoo ko war a jaarali yoon dooni tàkk der ak it nag anamuk seet lin gi ba tamit li nga xamante ni moom lañu war a jot ci wàllu wàllu ko jiwu googi ak matadi am na ci Amadou Tidiane Ba nekkoon na nag division ci wàllu ko semence doon disem moom nag gis na ne am na ci loo xamante ni nag matalewul ci wàllu ko liggéey bi ma booba jaañ li nga xamante ne santaane woon nañ ko ak liñ ko defal tamit bokkul ndax it nag wàllu ko jiw bi melokaanam amul li nga xamante ni moom moo di ko ngëneel donte ne sax dana ci geneen wàll ga bu ñu waxante dëgg tamit Tamsir Mbaye bu CNRF ma nga ci wàllu mbay mekk defar mi ñoom nag munuñ li nga xamante ni tamit daañ ko ci daal di soxlawu ndax it nag amuñu ay jumtuwaay yu ko daal di mate journal bi mel ni ku naan réewum Sénégal kay politique bi mu war a tëral ci wàllu ko jiw loolee moom la daal di sàggane ba tax na ngir mu yegg fa mu mébét ci wallu ko dund moom duul tey lay doon muy wéy di doon ab baar yëgu ngir rek faagaagal ki nga xamante ne moom moo di baykat yi journal bi ne xoolal li rek lu ëpp juróom-ñeenti milliards ci suñ ko koppar doon li nga xamante ne nañu ko tax taxawal ci wàllug alal lépp rek ngir yeesalaat peq li nga xamante ne moo di wàllug jiw gi waaye lépp ci sën bu rek lay daal di mujj xorom saa ngay sàllit ci diwaanug Fatick Le Soleil yéeni kaay xëy na ci daal di soobu ak jafe-jafe ci wàllug liggéey bekk ñi nga xam ne ñoo ci daan seen doole te daanaka dundee wu ñu coono bu jéggi day lool du lenn loo xamante ni wër na leen ci wàllug matuwaay ñu war ko di mën a jëfandikoo mu dox seen digganteeg lépp lu di wàllug métti ci liggéey boobee ba ñaare sax ay l'accident di ci faral di am ci wàllug xorom soosali yàq li nga xamante ni moom moo di seenaw yaram ca diwaanuk Fatick gaaral nañ ko ci ëttu yéenikaay gile doon la sol Les Échos yéenikaay moom ci ndox mi la daal di xëy nuru ak jafe-jafe biñ ci daal di nemmeeku fa la ñuy fekk kii di Mignane Sarr bu forum social sénégal yi wana nag ñi nga xamante ñoo nekk ci njombaxtaluk nguur gi ñi daal di siiwal contrat bi jëm ci wàlluk séddale ak saytu gi ci wàlluk ndox mi ci réewum Sénégal rawatina li nga xam dañ ko dénkoon siège ak contrat bi doxoon ci seen kon war na am li nga xamante ni moom moo di wàllug leeraange gannaaw ba kër gi la du siège dal di ñàkki lépp lu mu amoon ci wàllam doxoon ci digganteem ak Maroc Modou Mignane Diouf ma nga naan dégg nañu ne nguurug Sénégal noppee naa siiwal contrat yi jëm ci wàllug pétrole beeg gaz bi waaye nag ba tey amul fu mu junjee ni dana dal di weer mbodi ci wàllug ndox mi ci réewum Sénégal ndax it nag lu am solo la dara ëpp ko